te képp koo xam ne sëriñ Béthio Thioune jaboote na la ku ne xam ne ne sëriñ Béthio cër bi mu amoon sëriñ Saalihu moo ko ko defaloon te samp sëriñ Saalihu koy gën a dëgëral waaye doo ca wàññi dara samp sëriñ Saalihu fu ngeen fekk njabootu sëriñ Touba la ca war mooy suuxat ak màndal ba mu ba mu bañ a lax bañ a gooy kon bu ñu sañoon njaboot boobu nekk benn bi ñu nekkee Cheikh Béthio ba mu làqu di gënaloon kilifa yi mooy njaboot gi góor ak jigéen ñépp àndandoo nekk benn dox ci dox yi nu yoon wi dox yi nu yoon wi nag mooy ku mag nañu la jiital ak kër goo mën a nekk ci kaw nga nekk góor ñu jiital la ca kër googa loola moo tàmbali jamono yi Seex Mamadu Moustapha ginnaaw bu Xaadim Rasul làqoo tey Seex Muhammadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér njabootu Serigne Béthio Thioune nag ku ne xam na ne Serigne Saliou moo taxawaloon Seex Béthio jox ko cër bi mu ko jox ba mbooloo mi ànd ak moom kon loolu amul kenn bu cay wàññi dara ci njabootu Serigne Touba léegi nag foofu dañuy xalaat ne ginnaaw bu xalif général de Mouride jàlle Serigne Seex moom Serigne Saalihu mooy ki fi nekkal sëriñ Saalihu ñu koy ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te ko wér muy koo xam ne ñépp xam nañ njubam ñépp xam nañ ak sellam ñépp xam nañ ak bëggam Serigne Touba ak yoon wi nu mu ko ñore ba tax na baatam ak waxam moo jëfam ñooy dëppoo moom nag jokkalante nañ ay kàddu ci bëccëg ci teewaayu sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mu leeral ne bi ma ko waxee ne ko taalibe murit yi day dañuy laaj mbirum soxna soos ak ci màggalu Tuubaa gi ak yëngu-yëngu yi mu daan def ak lan moo ci sa gis-gis mu wax ne moom amul benn gis-gis bu dul bu gis-gisu sëriñ Mouhamadou Mountakha li sëriñ Mouhamadou Mountakha gisoon wax ko ko digal ko ne ko kii nga xam ne mooy sëriñ Saliou Thioune mooy góor moom na jiitu jigéen ñi topp ci ak ndaw ñeeg gone yi mooy doomi sëñ Béthio ju mag nekk góor kon kooku moo war a jiite mbooloo ma di sosi nag ci njabootu sëriñ Touba gi te kii seen jëwriñ mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saleh ndax moo fi nekkal Serigne Saleh te Serigne Mouhamadoul Mountakha itam loola la mën a séq ak ñoom léegi nag bi nga xamee ne soxna si sëriñ bi digaloon na ko loolu moom Aïda Diallo leeraloon ko ne ko na ci ginnaaw Saliou Thioune mbooloo mi yëpp nekk benn ñuy ànd di siyaare si seen jëwriñ moom li ñu ma leeral mooy ndigal yooyu ñu ko jox yëpp. jóge ci sëriñ Muntaxa jóge ci sëriñ Seexum sëñ Saalihu sëriñ Saalihu Cuun moom ndigal lañ ko jox jëfe na ko te nangu na ko nangu naa wéye ndigal nangu naa sas ci kër gi waaye kii di Aïda Diallo ndigal li nga xam ne moom la ñu ko joxoon daaw ci ndigalu sëriñ Mamadou Muntaxa ndigal loolee ba fii ñu tollu tey yëguñ lu mu ca jëfe sëriñ Seexum sëriñ Saalihu itam la mu ko digaloon yëgul lenn dug ca jëfe kon nag dafay jaadu ñu leeral euh, adduna bi yëpp leeral fépp fu bu di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu xam lan mooy position kilifa diine yi jiite yoon wi ngan ko loola mooy ki ñu mën a séqal yoon wi mën a séq ak moom digal ak tere mooy ki nangoo doon ab taalibe nangoo jëfandikoo digle ak tere ñu di leen xamal ne nag kon ñoom ñaar ñoo séq kër sëñ Béthio te ndigal li mooy na Serigne Saliou Thioune jiitu njaboot bi topp ci ñu ànd ñu ñëw liggéeyal Serigne Touba loolu nag kon ñu xamal leen ne ndigal li ñu joxoon ay na jàll moom jëfewu ko kon Serigne Saliou Thioune moom lañ yëg ne lañ ko digaloon mi ngi ci biir ndigal noonu ndigal nag saa yu génnee ci am murit dara desatu ndax ko bokk ci yoon wi jaara la ci bàyyi ñu digal la nga def ñu tere la nga bàyyi kon nag képp koo xam ne dangaa xemmeem alalam ak koo mën a doon muy nag ya muy dajale wala xaalis ba mu wóor la ne li la sëriñ Tuubaa cërale ci boppam xeeb nga ko wala nga xiif xiif buy tax nga dem di ko fa sàkk na la wóor ne alal joo xam ne ji borom lu mu bari bari bari wéyewul ndigalul sëriñ Tuubaa bu nekkee ci biir yoonu murit na leen wóor ne alal joojee sëriñ Tuubaa seexlu na ko képp koo xam ne nag xeet nga li la sëriñ bi defal ba nga di ko yóbbu wala bu ñu la ko yëtee nga làq ci sa waral na la wóor ne foofee sëriñ Tuubaa jaar waroo nga ak moom ak jublu loolu na leer ci kanam ñépp kon nag lii bokk na ci li ñu bëggoon a ñaareelu point bi mooy kër ga sëriñ benn cuun am ngaabu kër googa mënuñu ne màggalu Tuubaa ay gan du fa dal ndax kër yépp ba ci mbedd ay gan dañu fay dal waaye nañu xam ne tere nañ ko lépp lu xeetu ci yëngu ci ngaam boobu ndax moo Tuubaa ñoo yem àtte ak li wër kër ga wala ñu di fa baas wala ñu di fa def yenn activité yoo xam ne jotoon nañ ko faa yëgal daaw ren ji interdit nañ leen ko ñu bañ ko faa def ak bépp jën yëngu ak benn manifestation bu ñu fa war a def tere nañ leen ci ndigalu kilifa yépp te benn baas walla buy rassembler booloo tere nañ leen ko ku nekk ci biir këram nag loolu dañ koy jàppe ne gan gu doxoon ba yam ca kër ga war faa dugg seela fa ab taw wala ngelaw loolu lañ koy jàppe màggal gi soxlawuñ ci lu dul jàng alxuraan xasiida xasiiday xaadim yi nga xam ne dara génn ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la sëriñ bi dégle kon ñu gàttal kàddu yi di leen xamal ne ñi ngi ñaanal mbokk yu am yéene ñëw yëpp suñu borom jàpp na leen ko ñi ñu fiy fekk yi am lu ñu leen tertoo gana leen leen ko def lépp luñ ci jéego wala ñu yëngu ko ci Serigne Touba nangu ko ñu ngi leen di baal wax ko salaamaaleykum wa rahmatullah